salam salaamaaleykum nit mënut a wax bopam mais li ma mën a wax ci sama bopp daal maa ngi tudd Khalifa Guèye nekk euh, directeur SAD Amadou bari nekk chef de la division jeunesse et sport de la ville de Guédiawaye. Euh, grand Khalifa tey yaa ngi koy dégg Guédiawaye parce que démb dégg naa def sortie dégg naa ko sortie bi nga def ci benn euh, projet de la place ñëpp di wax match yi dañuy dem ci dégg ba arrêté fi deux match yoo xam ne problème lumière la ñu ko lan mooy problème lumière ba stade. Euh d'abord nous, avons Internet, internetu euh, Guédiawaye info di rafetlu seen parce que nous avons un moment su nous avons bëree ngeen ñëw jël la bonne information parce que spéculation est bëri na. parce que nous savons exactement ce qui se passe euh, premier match bi nga avons arrêté nañ ko match euh, zone 3 c'était Cité avec ak Coach. Euh, de Kodo. boobu franchement à mon nañ qualité lumière nous ñu permettre de jouer mais boobu décision arbitre arbitre une ronde c'est seen biir que ni ñoom bu match yi demain. ba de cette dul de parce que ñoom dañoo am seeni système ak ODCAV donc su suñu taalee lampe bu matee xaw ma tant de minutes dañ leen di fay double les ñoom bu ñu accordé wul mouvement Nous avons une décision pour décision le match par contre le marché nga xam ne na fi arrêté il paraît que sur appréciation de l'arbitre dañuy qualité lumière bi dafa c'est vrai que ni ce temps-ci qualité lumière est très importante. c'est un constat mu Nous tax à notre niveau c'est vrai que amna, mais ñun bëgguñu de def cab pour régler problème Nous duñu bëggoon problème ñu régler définitivement Nous euh, avons lancé un marché mon partenaire pour tout acheter pour accompagner la ville de Guédiawaye pour la réhabilitation complète des projecteurs parce que su ma juumul deux ans on a ce même problème problème bi dafay perdurer lu parce que projecteurs yi dafa maguette bu Vous xoolee de l'autre côté projecteur yi brise mer da ko ba projecteurs yu bëri dafa wadd ñun ñoo ko mujj donc lolo, am d'une part euh, si vous vous rappelez bien trois ans ci gênant, am équipe yu fi dajji euh, niche yi jël ay xeer dóor ci parce que dañu mën a seen équipe souvent l'ol tam acte yooyu yi population bi di def ak parfois surtout manque de suivi bu correct ci entretien bi dina moñu indi à ce stade l'ol motax ñun à notre niveau lu ñu bëgg surtout ñu réhabiliter projecteurs complètement mais amu am ben plan de de de suivi et d'entretien ba nga xamni ni li dal tay ci nous dal mais c'est une situation que nous avons trouvée sur place mais y a une solution on a voulu arrêter euh, changer de collègues. mais bu arrêter il faut que nous arrêtions complètement Nayatan. te mënuñu arrêter complètement on géejawaay di génn di dem beneen localité di football ji le minimum mais il faut dire que nous également match zone 2 est passé c'était un vendredi les gens ont voulu nous avons décalé l'heure bi ba démarrer donc a fait impacter comme quoi amuñu qualité lumière il faut que nous puissions en compte mais ce que nous suba incha allah vendredi ak samedi nous arrêter match programmer match zone zone unie pour permettre euh, acteurs aux techniciens pour que nous ñu am intervention ci projecteur. yi ba nga xamni minimum minimum 5 am poté bu lampes ba nga xamni ayons dañu am qualité de lumière bu mëna terminer match yi à temps comme les am mais quel que soit alpha les marches ñu dépasser 20 heures parce que dafa am mesure boo xam préfet moko jëlone interdit jouer au-delà de 20 heures lool également c'est une réalité que xam buñ koy en compte mais nous faut nañ ci ak euh, ak ak trouver nañ euh, accord mais on attend juste inshallah demain l'arrivée des techniciens pour que après demain pour nous régler le problème d'une manière provisoire en attendant nous ñu la phase finale zone zonale Tombek, ça Tidji, nous ñu ñu délocaliser match marché, phase départementale à le temps que nous menons réhabiliter complètement les projecteurs c'est-à-dire nous euh, ñun faire le pilotage à vue parce que le maire de la ville il a fait dafa ni nañu trouver pour ñu régler problème Amadou bari il faut que ñu am opportunité ba bu ñu amee arrêté Amadou Barry ñu am feneen fu ñu yóbbu ñu nekkoon kon nañu nañu réhabilité completement Njaareem le temps que ñu réhabilité Njaareem dinañ décongestionné Amadou bari léegi Njaareem pare na inauguration moo des ak ay yu sew sewaan yoo xam ni mënuñu tere euh, ñu ñu ñu ñu inauguré ko loolu moo ci des kon donc pour dire que pour rassurer aux populations li am ñun neexuñu parce que ñun ay acteurs nawetaan lañ moi je suis dans une ASC équipe bu dépassé xaalisam ba paré ñëw jouer match ba ci biir euh, mu am gàllankoor du neex ci téléspectateurs yi du neex ci également ci ñi nga xam ñoy dépenser ci ASC parce qu'ils sont obligés de reprendre la même dépense. mais xam nga la population bi laaj aussi dañuy wax pourquoi maam loolu mënuñu ko woon def avant de daal di commencé. Euh, il faut que tamit nit ñu comprendre c'est vrai le marché a été lancé dafa am lu nga xam ay procédure la euh, ñun si administration la ñu nekk mun ñu tëb tëb tëb rek am dépense yoo koy def am procédure ñu lancer marché mu am euh, mu am délai ñu attribuer provisoirement ñeneen ñi ci bokk bu ñu def recours ñu def recours mais délai yëpp il faut que ñu ñu jeexal procédure yooyu procédure yëpp jeexal nañ ko jeexal nañ procédure d'appel d'offre a nañ attribution bi maintenant li ci une exécution programme bi le programme en réalité du projecteur que c'est l'érection d'un centre d'hébergement Il xam dañ une capacité à peu près 40 places a une salle de musculation une salle de gym une salle euh, salle de conférence am également des suites pour nga xam ni ku ñëwati géejawaay même même club bu jógee feneen bu bu à Amadou dina trouver sur place stadium dina sur place terrain football dina mën loger def compétition à Amadou Bari. toujours muy à Amadou Bari. am service mu même bu hivernal am fu musculation am salle de massage

nous travaillons sur la base des documents que nga euh, c'est des arrêtés nous avons une délibération au départ signée par le préfet sous forme de arrêté tarifs yooyu ñu nous fixé ñun mënuñu ko nous mënuñu ko souvent les léeg ma dégg au delà du football nous avons des Bari de cher pour même un concert concert c'est 1 million football match compétition comme d'habitude de 15h à 19h30, c'est 50 000. Pour les séances d'entraînement, c'est 20 000 francs pour la journée. Pour les, pour matchs la nuit, également, devant le tarif, il 20 000, il 40 000. Tout dépend de ce que vous C'est-à-dire que, vous parfois, euh, à Alsan Digo. Digo, mais les séances d'entraînement, journée pour les clubs et instituts, c'est 25 000. À c'est 20 000. Bon, demain, Digo également.

sat buy inondé mën ak yow ñoo ci bokk yow mënuma ci dara parce que station bi mooy am problème ndox bi ñëw taw bi ñëw ndox bi demul mu reflé wu mu reflé wu ci biir sat bi ñun ñoo ci nekkaat def effort def effort ba mainteniraat sat bi problème mu courant yi ñuy am yu ci bëri mais auparavant nag stade bi gëj nañ gis ñuy fóol ba yàgg projecteurs yi fay loolu moo waroon jëkk a nekk problème parce que dañu amoon problème mu tension wu Senelec tension bi da daan

réhabilité indi ay projecteur yu bees ma nga xamni ni ni mu toll ak fi mu tek tankam pour avancer war nañu mën dépasser ay problème projecteur te incha dinañ ko dépenser parce que autorité yi jël nañ ci ay mesures mais nak nit ñi parfois nak besoin bu ponctuel. te ñun wa il faut ñu am tuuti patience. Euh, c'est vrai que ni lool lu wara nek la mais nak nañu xamni ñun ay keur moñ tank ay procédures il faut ñu top procédure yi du début à la fin. di wax infrastructure bi ñom ñoko mom lu ci nit gis mu xam ne neexu ko wala jàpp ne nii war nañ ko mën a améliorer ñun suñu porte tijjeeku na pour que nit ñi ñëw ñu weccoo xalaat lépp lu nga xam ne war nañ ko jël ñu jël ko di saluer également euh, esprit de euh, de citoyenneté et de euh, bi nga xam ne population bi am na ko parce que souvent ñun bu ñu amee lu ñuy def ñu gis parfois les supporters même de Guédiawaye ki viennent ñëw parce que dañuy sentir ni seen infrastructure ñi nga xam ne dañuy fubal ñu gagné leen nu ñu bàyyi ñu fubal ba pare ñu gagné leen ñu dem di yàq parce que li ñuy yàq ñoom suba ñi ko yàq ñoo ñëwaat di réclamer li ñu yàqoon daaw ñi tëji woon saa à dire jël ay xeer dóor ci pour parce que dañu mën seen équipe pour projecteurs yi fay gis nañ ko fi daaw final final départemental équipe yu ñu mën non seulement ñun tëj nañ niche yi mais dañu dem ci poste Sénélec bi ñu couper fa courant bi ñu jël gémi yóbbu leen ñu ñu yëkkatiwaat courant bi bi ñu fa demaatee brique lañ ci dóor contact bi damm

gën a góorgóorlu ba nga xam ne eh, eh, stade bi ku fi ñëw li nga soxla di nga ko am te doo ci sonn